Libérez Sonko. Libérez Sonko. Libérez Sonko. Libérez Sonko. asalaamaaleykum. ngeen ak tay ñii ma taxawal. maa ngi wax ak état du Sénégal di wax ak nguur gi fi nekk ak kilifa ak notable ak bépp doomu Sénégal. ak kilifa aada yi di wax Sénégal réewu jullit la waaye avant tout tamit réewu ngor maa ngi xamal leen ne ki ñu teew fi tey ak ñi mu àndal muy président Ousmane Sonko ak détenu politique yi gis ngeen not boobu ngeen gis mu génn am na ñaari fan bi mu génnee ak tey ëpp na ko sax defe naa ci trois jours lay toll trois jours yooyu est-ce que man ngeen xam lan moo nekk état de santé Ousmane Sonko Ousmane Sonko de état de santé am na foo xam ne nii maa ngi ñaan président Macky Sall politique am na loo xam ne jarul ñoom ak Karim Wade jaaroon nañ fi te terewul tey dem ngeen ba soxlaante waat jaaroon nga fi ak Khalifa Sall dem ngeen bay bokkaat taabal di waxtaan. àdduna jeexagul te Ousmane Sonko mi ngi fi di continuer di dund. am na lu nga xam ne dafay ñaaw te bu ëllëgee day naqaree rafetal Amadou Ba yow ak Ousmane Sonko yàgg ngeen démb tey doog a ñëw am na lu bari loo xam ne jaar na ci seen diggante doonte àndatu leen ci wàllu politique bu la dara jaral ci àdduna jël bakkan ba lor ab jullit pour nekk président Sénégal am na loo xam ne buñ la diggee ne la diw bu dee wala diw bu feebaree wala diw bu bokkul yaay jël loolu dara jaralu la ko te jàpp nañ ne au moins que ab jullit nga santé Ousmane Sonko man de xam naa ci lu bari parce que li tax ma xam ko yéen xam ngeen ko waaye maa ngi leen di seedeel ne Ousmane Sonko guddi yii ñu toll teggi ko loxo taxul mu dem këram mais nañ ko teggi loxo mu mën a génn ci grève de la fin bi mu nekk mën a jël ay garabam comme nam ko war a jëlee man message boobu laay lancé président Macky Sall di ko lancé kilifa diine yi di leen wax ne Sénégal saa bu masaan jub guuta du fa yegg parce que kilifa diine yi ñooy jub jub na ci guuta boo xam ne nag maa ngi woo Touba di woo Tiwaawan di Njaasaan di woo Layen di woo ñëpp ñu wax ak président Macky Sall mu delloo si xelam di wax libéré Sonko libéré tout le détenu politique wasalaamu aleykum wa rahmatullah